supporter AS Mbacké yi. Mhm. di féliciter encore mes joueurs. ñi nga xam ni métti woon na trop ci ñoom parce que yàgg na trop ñoom ñu ngi daw ci gannaaw benn victoire te tey la ko yàlla dogal ñu am victoire bi. Mhm. mu doonoon match bu métti doon yombul woon. Mhm. lu tax mu métti pression boobu nekk ci ñoom. du yomb. match bële ñu génnoon ci défaite. tey bu ma niiloon sax damay jël ma nangu. ma xam ni. lii la yàlla dogal maa ngi am progression. parce que dama génn ci défaite. tey ma nul. kon troisième match bi dinaa ko gagné. man noonu laay jàngatee football bi. moo manqué bi nga ja li ma manqué mooy man bi ma ñëwee liggéey bi dafa métti ci man parce que j'ai pas trouvé une équipe. j'ai trouvé une équipe bi nga xam ne dafa tas. ma nekk ci tabax. tabax boobu nag du yomb. man équipe bu ma yor dès le départ tàggat ko. Mhm. préparer ko sur le plan psychologique sur le plan physique sur le plan tactique. laa damay xam ni man sama liggéey nekk na mais fu mu ne nii liggéey bi chantier bi gudd na mais lan mooy sama objectif da li ma am jël mais xam naa ni équipe bi moom mënut a wàcc ak man man loolu moom mosuma ko xalaat waaw présenté wul man maa ngi tudd Simon Kabou sa jaar-jaar tuuti sama jaar-jaar maa ngi jaar au Casa mhm. jaar Sonacos bi mhm. nekk fi capitaine d'équipe way mhm. jaar les espoirs de Bignona match GIA bi ma joué keroog doonu loon match bu yomb man xam naa mais ñu bëri xamuñu parce que entraîneur bi fa nekk mm-hmm. moo ma njëkk a joué en Ligue 1 mm-hmm. muy Souleymane Camara Gaucher moo ma jàngal lépp li ma xam ci football mm-hmm. moo tax match boo xamoon naa ni du yomb mais je les ai contenus quand même ñoom bu ma match ni loon ak ñoom ou bien ma gagné ak ñoom ma gagné leen kenn du wax. sa prochain match man maîtriser parce que yoruma calendrier bi fu mu ne nii. ngi leen di jaajëfal yéen bu baax baax.